بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يحفظ قولي السلام عليكم بك جلتي السلام عليكم بك طالبي نونغي ام بيت دل سي وات ген نين كوي ديفه ديماش بو جات سي وقت وي في سي سن ايميشن جاسبرا تي رانيو خاسيدون نايك ngeen ci ànd ak seen mbokkum talibé pap dem ba ja fii ci pontedera ak eh, sëñ pap moxtar tal ak cheikh mbàkke mbub géewul xarim rasol fële ci tuba par ci xarala bi sëriñ modou mbay càmbe fall noo ngi ziar ñëpp eh, di jiital ci ziar bu nag suñu yaakaar teeg ëllëg cheikh eh, sëñ moxtar sëñ muntaxa mbàkke di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ziar mbooleem seex yi sëriñ Tuubaa di ziar it kilifa diine yëpp eh, <coughs> di ziar nag sunu jëwri ñi nga xam ni ñoom la ñu bokkal rajo bi bu ñu eh, limee sëñ dal ak sëñ Ibrahima Ndiaye rek mel na ni lim nañ ñëpp noo ngi ziar eh, di di leen ziar ci weer wu bees wi nga xam ne moom la ñu dëgmal mu di euh, weeru rajab ñun euh, murit defe naa bu ñu déggee rajab rek am na lu ñuy fàttali am na it lu muy def ci xolu murit yi euh, ndax weeru rajab moom ñëpp xam nañ ni weeru ci mooy weer wi nga xam ni ci la yonent bi sallallahu alayhi wa woon waaye it sunu sëriñ bu tedd boobu di Cheikh Mouhamadul Fadilu ci la ganee aju ah ñu koy màggal tudde ko Kazu Rajab kon mu mel ni ci murit yi eh, murit rek bu déggee ni eh, weeru rajab dugg na eh, dafay doon waxtu nga xam ne ñu ngi ci waajal màggal gi nga xam ne moo di màggalu Kazu Rajab ren nag mu tombe Euh, daanaka mën naa ne rawante wuñu sax ak ay bés li nga xam ni moo di euh, màggalu euh, maam soxna jaara ne màggal màggal gi nga xam ni moom la ñu def poroxan ak mu jot di daje ci weeru mars le vingt buñ ci tegee def naa ñetti fan dina màggalu Kazu Rajab di ñëw nekk loo xam ni lu am solo la kon di maanaam euh, rendez-vous boo xam ni euh, euh, dañuy ñaan suñu borom may ñu ñu fekkee ko jàmm waajal ko ni ko daan defee at mu di ci soññu mbokki tàll bi yëpp ci taxawaay bi nga xam ni moom la moom lañ ci ci am saa su ne di ziar nag mbokki auditeurs yëpp rawatina auditeur u Xassida Online naa tey jii moom sëñ Pape Mokhtar da koy jéggalu rek ndax mm, yàlla dafa dogal tey jii mu nekk ci xat-xat ba munta bokk ak ñun tey MWI kowaxe rek saa su ne émission bi bokk na ci li nga xam ne ñun ci réew mi bokk na ci nga xam ne moo di sunu mag ci ci communauté bi waxtu yi saa su jotee rek sunu xel du def lu dul fuñ fu mu mën a fekk rek def ko ni ko mënee di am yaakaar ni eh, mbokki auditeurs yi ak mbokki taalibe yi ñoom ñëpp danañ ci am mbégte ci déggin bi ñu ngi ziar mbokki taalibe yi nag ñi nga xam ne vraiment ñu ci bari dañuy woo saa su ne ñu rafetlu émission bi ñu eh, rafetlu taxawaay bi bu baax eh, ndax ñëpp xam nañ ni Italie jamono yii ñu toll ñu euh, mel ni ñun soxla nañ ci lu bare bare bare soxla nañ leen ci wàllu taxawaat euh, tegaat yoon ci communauté bi taxaw leen euh, jàppale leen ak it joxe seen disponibilité ba saa su mbokk sénégalais yi jafe-jafe rek mën ñoo xalaat kon ñi ngi ziar mbokk yëpp di ziar it sunu mbokk yi nga xam ni ñoom la ñu bokk ak kades ndax it kades bokk na ci organisation yi nga xam ni am nañ ci yaakaar am yaakaar ngir ëllëg jafe-jafe yi nga xam ni moom la ñuy dund fii communauté sénégalaise bi yëpp mu mën cee taxaw Euh, di leen ziar bu baax di ziar soxna Sëli euh, soxna Naatu euh, Mariama mbokk yi nga xam ni ñu ne ñoom ñoo bokk taxawaay bi yëpp di leen sargalit ci xew-xew bi nga xam ni moom la ñu weesu di àjjuma ngeen dégg daanaka fu ñuy fépp ci àdduna bi ñuy sargal jigéen ñi ndax dafa nekkoon ñuy wax huit mars bés bi nga xam ni àdduna daf ko sargale jigéen ñi waaye ñun dañuy wax ni ñun murit yi ñun jullit ñun de bés bu ne suñu huit mars la ndax lislaam suñu teg yaakaar naa ni eh, kenn tegu ko fa eh, boo demee ci alxuraan eh, surat entière la suñu borom jox soxna yi nga di nekk nga ñëwaat ñu jëlaat beneen surat jox ko tuddee ko soxna Mariama kon ñun ñun julliti am nañ fu ñu teg jigéen ñi waaye nag tegin bi warta nekk rek ci ci ci ci ci wax dafa war a am forme ba nit ñi di ko gis ndax bari na ñu ñu ñu xamadi suñu diine lu ci ëpp dañuy wax ni lislaam dafa dafa jël jigéen ko en second plan daanaka dañuy wax sax dañ leen xaw a marginaliser wax boobu nekk wax bu yàqu ndax te jii bu ñu xoolee mën nañu eh, wax ni li metti ci àdduna mu di fii metti ci àdduna ñëpp xam ni ci eh, mu ngi eh, cadence des mœurs beneen bi ñu dem ba nga xam ni jigéen dayo bañ ko joxoon dëgg-dëgg daanaka dayo boobu wàcc na fan yi rek dégg ngeen euh, waxtaan bi nga xam ni moo tiital Sénégal yi ñu ci waxtaan daanaka mu doon benn maa ngi koy gis ci réseaux sociaux yi mu doon titre bu xaw doy waar euh, ñuy wax ni euh, au Sénégal actuellement il y a plus de quatre millions cinq cent ay jigéen yoo xam ne ay célibataire lañu loolu nag mën naa ni eh, li ko waral bokk na ci ñun julliti charte bi ñu wàcc ci lislaam eh, mu di eh, li nga xam ni moom la lislaam digle nga xam ni tey ji dañuy wax ni jigéen bu tolloo ci daanaka fukki at ak juróom fukki at ak juróom benn rek wares na ko mën a maye Euh, mais boo xoolee daanaka suñu société yi dañ ba nga xam ni daanaka jigéen ñi euh, dañu dem ba euh, ñoom ñooy wutal seen bopp borom kër ndax modernisme actuelle yóbbu na leen ba nga xam ni tey jii dañu bëgg a jàng jàng ba am seeni diplôme jàng ba am liggéey Euh, cursus boobu boo ko xoolee daanaka boo moytul sax soxna si bu tolloo ci sëy boo moytul dina bëgg am gone mu tëkku ndax it euh, euh, waajur ak société suñu société ni ñu bindoo woon mooy boo ci xoolee ko ci gis boo duggee ci seen kër seen taaw bi ko waajuram di am daanaka boo amee ñaar fukki at da ci toll wala tolluwul ci ñaar fukki at waaye léegi boo xoolee daanaka euh, euh, couple yi léegi ñu euh, ci ëpp balaa ngaa gis ñu ci ëpp balaa ñuy dem di xalaat sax di am soxla daanaka dañuy dañuy dañuy dugg fanweer wala ñu romb ko que ça soit mu dem ci góor ñi wala mu dem ci ci ci ci jigéen loolu it lu lu mot bàyyi xel la waaye it ñu nit defe naa ni société bi ñu nekk ñu nañ ci gën mën a am ak njàngat ndax ñun ñi nga xam ne dañ fee am njaboot euh, nekk ci beneen société bu nekk bu niroowul ak société sénégalaise war nañ ci toog def ci njàngat boo xam ni ah bu ëllëgee sunu njaboot gi nga xam ne moom la ñu meññee fii ñu màggee fii euh, euh, galfan googu nga xam ne moom la société bi dugg léegi war leen a boo bañ leen a bañ leen dal yaakaar naa ni mm, mm, euh, père de famille wala euh, mère de famille bu ci nekk war ci am taxawaay boo xam ni euh, war ci toog di xalaat daayira yi war ci toog di xalaat ndax man gëm naa ni li ñu war a gën a mën a mm, dimbali moo di esprit communautaire boobu nga xam ni moom la ñu gën a euh, euh, euh, dundal ci sunu sunu sunu sunu communauté sénégalaise ba nga xam ni tey jii ñi nga xam ni ñoo màggee fii juddoo fi yaroo fi bari na sax léegi gis naa ni dëkk yu bari daanaka boo xoolee léegi gone yi ñu ngi commencé di jëlante seen biir ci ci yi waaye loolu mën naa ni boo xoolee numéro bi euh, taxu ko bari lool loolu nag euh, defe naa ni war nañ ci wut njàngat ba créer ay mécanisme yoo xam ne suñu njaboot bi mënuñ ñu tàmm di nekkante ñoom seen biir di dund ensemble dund communauté boobu nga xam ne tey jii moom mooy mën a indi lii nga xam ni moom la ñuy wax doon euh, benn kon nga xam ni tey jii sunu sunu xeet yaakaar naa ni eh, eh, du war a mun a tasaaroo wala mu ngent ndax it naa ni ab dëkk boo fa demee eh, ñu ne la yéen bokk ngeen ñi def ko fii war nañu xalaat ban façon la ñu war a mën a def ban njaboot gii fi nekk du ñu am xel ñaar mukk ndax it ala kulyaal Euh, ñun ñi fi nekk ñëpp dañ fiy jóge moo xam jógin wu sedd la moo xam dellu soowu dëkk euh, noppali kujj ko wala yàlla dogal li muy dogal fii euh, bu la fi fekkee dañ fi njaboot bi fi nekk kon loolu lu lu lu lu lu mat waajal la waajal bi nag du lenn lu dul sax ci diine di dundee jaamu yàlla Euh, mu nekk sunu sunu sunu sunu sunu sunu yoon ba nga xam ni tey jii képp ku ci loolu euh, moo xam njaboot gi ndax it euh, li ñuy wax maanaam vie familiale du lenn lu dul maanaam ay instruments yoo xam ni dañ koy teg ku nekk am loo war a ndox borom kër gi soxna si Euh, gone yi euh, ku ci nekk da nga am euh, ay acteurs lañu dañu am rôle bu ñu war a joué waaye ñi nga xam ne ñoom ñoo yore fondement yi mu di borom kër gi di soxna si tey nga xam ne ñoom ñooy acteur principal yi tey jii am na rôle boo xam ne buñ ko jouéwul rek pour moytu ñu topp seen foofu mën nañoo def li ñuy wax hors sujet loolu nag moo di euh, euh, dindi euh, li nga xam ni moom la ñu def ci ñun ndax man dama gëm ni tey jii su fekkente ni li nga xam ni moo di suñu ay waajur ñii fi ñëw ku ci nekk ñun fi ñëw da dëgër am lu la lay moo xam dañ laa jàngal alxuraan ba nga wàcc jàngal la xam-xam ba mu fees sa dënn yar la ba ku la gis naw la ala kuliyal euh, liggéey boobu warta naxsaay ñàkk naxsaay bi nekk moo di ñu fexe ba liggéey boobu euh, ñu ñu ñu ñu ñu ñu bàyyi ko ci suñu njaboot def ko ci suñu njaboot nag moo di euh, du du lenn lu dul maanaam ñu gis na ngay dund loo xam ni Euh, say njaboot dañ ci ànd ak yow gis ni lii kat mooy sa maanaam mooy sa mooy sa mooy moom moom moom ngay moom mooy say habitude euh, ndax tey jii nit ci mënta nekk këram euh, di julli waxtu du ubbi téere du jàng alxuraan du nafar dara du du du léeg-léeg sax du toog julli ba pare ànd ak njabootam ñaan wala sax léeg-léeg mu toog waxtaan ak njabootam euh, euh, nga bëgg sa njaboot xëy a xam tey ji euh, li ñuy jëmbat ci biir kër gi moom la njaboot gi di génne li ñuy nampal suñu ay doom moom la njaboot gi di di màggee ndax tey ji nit boo koy jox moom eh, eh, dama lay damay damay misaal rek eh, da gis nit tey jii ñu koy jox yaay waajuram di ko di ko nampal ci ci ci ci boppam keneen nga gis ñu koy jox meew artificiel ñaari màgg yooyu dafay dafay wéet dafay dafay dafay dafay dafay dafay wute ndax bu bu fekkente ni dañ koy wax bi nga xam ni waajuram daf koy nampal euh, ci weenam euh, ñu am contact direct seen ñaari bëti di jàkkaarloo ñu tàngooru waajuram euh, mu koy ree ngi gis affection boobu ñoom ñaar ñu màggee mu koy yar ba mu màggee noonu dafay am leneen luy dox seen diggate ñoom ñaar waaye it loolu nga gis loo xam ni dafay nampal doomu neen ak dara jotu ko loolu artificiel te gis ni gone gi peut-être mën na am yeneen pulsion yoo xam ne du koy comprendre yooyu moom mooy li ñuy misaal ngir wax responsabilité yi waajur yi am beneen bi aussi nekk li nga xam ni moo bi ci biir kër gi ndax jamono yi boo xoolee suñu société référence yi ñu jël dafa doy waar lool maa ngi xool ci semaine bii rek ci ci ci net bi ndax boo xool ñun yàlla daf ñoo nattu lépp lu ñuy def suñu réew moo xam ci wàllu média moo xam ci wàllu télévision ci wàllu internet daanaka mën naa ni dañuy jalegeeg ñoom en temps réel dañuy gis gone yi nekk fii daanaka la xew ci télé Sénégal yëpp daanaka moom la ñu dund fii euh, euh, mu mel ni jamono yi ñun suñu réew dañu am ay manque de référence ci manque de référence bi mooy tey ji boo xoolee suñu télévision yi amul presque télévision li ñu am ci télévision ni mu bëree mais boo xoolee daanaka télévision yi ëpp doole ci suñu réew référence yi ñu am wala maanaam yoon wi ñu jël ñu yoon bu mën a

théâtre bu gën a bon moom la gën a bëgg moom la jënd jamono yi rek am na beneen théâtre bu bon boo xam ne moom lañu teg fan yii mu ngi surtout wax titre bi nu mu tudd euh, yooyu daanaka boo xoolee ñun suñu kër yi actuellement moom moo fa nekk actualité euh, da gis tey jii ci gis këram pour nga gis sax tey jii dem ci ay kër fekk fa ay téere lu jafe la boo ñëwee lu kër goo gis am na wifi ku nekk yore sa téléphone dem ci réseaux sociaux yi seetaan théâtre yi ndax daanaka boo xoolee léegi daanaka théâtre yi kenn seetaanatu ko télé sax pratiquement donte télé lay jàll yooyu bokk na ci yi nga xam ni ñu euh, euh, ñu jafe dimbali njaboot la ci yàlla yaakaar naa ni ñun am na nu nu tuuti nuñ def noo xam ni xëy na mën nañ ci mucc loolu nag yaakaar naa ni jigéen ñi nekk ci kër yi soxna yi ci mën a am euh, ak seetlu ba di jàppale ci njaboot bi moo xam góor la moo xam jigéen ba euh, euh, dimbali ci ba ñu war a mën a mucc ci loolu ndax Sénégal géede ñu nekk di sunum réew daanaka mbir eh, eh, eh, moo am ndax boo leen xoolee télévision yi la fa am ji ak nga xam ni moom la nga xam ni moom ñoo jiite sunum réew daanaka mën naa ni dañ koy sponsorisé léegi boo xoolee Sénégal tey ji kuy kone bu dee jigéen lu muy bëgg a def ba ba ci wàllu jàng bi sax boo xoolee ay communication la ñuy bëgg a def wala mode xeetu yi nga xam ni daanaka moom mooy dem ci wàllu liggéey boo xam ni ci bakkan la jëm bu dee góor lu mu lay wax damay football sport wala daanaka xeetu ay mbër ñu dem sax ba da ngeen di gis ni daanaka même suñu kilifa àdduna yi dañ leen di sponsoriser li ci mujj moo di campagne électorale bi nga xam ni moom la euh, euh, euh, moo ñu moo ñu jàll mu ngi gis ni tey ji képp ku ci dem bëgg ndaje bi ngay def am mbooloo ngay def da ngay woo ay mbër wala nga woo ay waykat ñu dar la nga mën nga mën am mbooloo loolu nag yaakaar naa ni war a nekk bàkku daf ñu war a indilaat ak jàngat te ba nga xam ni tey jii sunu sunu sunu sunu barab bi nga xam ni fa la ñuy yaree jikko yi fa lañ koy togge mu dem université yi ñu mel ni daara yi xaw a faqir lool sax tax dëgg bi ci war dëgg dëgg joxati leen ko tey jii boo xoolee investissement Sénégal mën naa ni école yi dëgg dëgg nekkuñu priorité ci wàllu investissement ñu nit war nañu seet ci ndax ñun euh, euh, ñi nekk bitim réew dafa am euh, gisin bu ñuy gisee suñu réew yàlla daf ñuy ba nga xam ne tey jii bu ñuy gis suñu réew dañ koy ak peut-être benn façon boo xam ni xëy na ñu nekk foofu sax rendre compte ndax loolu war nañu mën a dimbali ba suñu njaboot bi nekk fii ñu xiir leen njàng xam-xam ak njàngum diine euh, damay sant yàlla ndax yàlla defal nañu tawfeex ñun murit yi euh, boo leen xoolee suñu xalif général suñu Muntaxa Mbàkke yàlla ko yàlla yokk bàyyi ko fi yàgg fi lool ak ñun dafa am

mu ni maanaam dafa bëgg taalibe yi jël seen seen seen temps ak seen kattan ak seen alal yëpp ngir def ko ngir sàkku ji xam-xam euh, sàkku xam-xam boobu nag def naa ni dañu ko a def njàngat bu xóot di pour xalif bi ndax boo leen xoolee jamono ji sunum réew Sénégal taxawaay bii mu am yaakaar naa ni war nañu delluwaat ginnaaw xool suñu bopp euh, éliminer ràññe ndax euh, defe naa ni euh, réew mu yàlla defal tawfeex yenn façon manipulation yi nit war ko mën a taxaw. bu ma sori sax si loolu ndax vraiment ñu objet wax

boo moytul sax daanaka mën naa ni boo amul bu la yàlla mayul barke dëgg-dëgg pour sa njaboot jàng fa dina jafe ñun yàlla dafa ñu taw ka dëkk yi ñu nekk lu mel ni Italie tey ji damay wax ni fii ci Italie tey ji Italie nekk na dëkk yi nga dëkk yi nga xam ne tey ji ci Europe ñëpp gis nañ fii par exemple instruction c'est gratuit tey jii euh, euh, euh, bu sa doom boo jubloo pour sa doom jàng vraiment ba muy dem fat war na mën a def bu fekkente ni ku yàlla may xam la bu baax fépp fu moromam di war a mën a mutee xam-xam war na fa mut war a mutee xam-xam kon nañ leen góorgóorlu njaboot yi nga xam ne lu ci bëri dañ koy sànni Sénégal di ko sànni par commodité parce que it ñu ci bëri ni xale yi dund bi day metti wala boog euh, euh, du ñu a libre ni ñu ni war a mën libre donc yaakaar naa ni euh, loolu période bu mag la ndax sa njaboot yaakaar naa ni du la yàlla defalee tawfeex may la ay bant war nga mën a góorgóorlu delloo leen njukkal yar leen ci say ci sa pooj ñu xam la bu mbëgg yow xam sa jikko nga xam seen jikko mais bu ëllëgee ñu ñu war a mën a mel nga am fier waaye tey jii bu fekkente ni bari dañuy dañuy ñëw fii moo xam dañuy ñëw ba yegg si ñu defal leen ay këyit delloo leen Eh, eh, eh, xale yu nekk Sénégal ñu indi ay difficulté yu mag ndax it nañ ko wax nga joxe sa doom ñu yoral la ko bokkul ak nga yar sa doom ndax defe tey jii ñu ngi mën a sa njaboot yow rek yaa ko mën a supporter donte mën nga ko jox sa yaay mën nga ko jox képp ku mu mën doon tey jii sa doom mën na def lu ne

te tey jii da xool daanaka li ngay jël ci ñoom mën naa ni boo moytu sax daanaka genn wàll gi doo leen ko delloo te defe naa ni boo jubloo ci taxaw leen la nga war a mën a sant nit mu defal la ko boo sacrifié wu fi war nga mën a def ndax bu fekkee xale yi dañuy xëy jàngi euh, yow nga xëy liggéey moo xam njaboot gi euh, euh, euh, soxna si day liggéey wala liggéey su wàccee war ngeen a mën a ci jël ñaar ñëpp la war a def moo xam joxe sa contribution ngir kër gi taxaw loolu nag su ma ni ñëpp defuñu ko waaye ñu bari dañuy yóbbu seen njaboot ñuy dem xale am ay retard retard ci wàllu njàng ngay gis tey ji xale yi jaabante di dem ak euh, ñëw euh, fii euh, daanaka mën naa ni dañu am ay retard parce que ay trois quatre ans léeg parce que dañuy ñëw fii léeg-léeg def fi benn année du am temps wu jàng nga delloowaat leen Sénégal bu ñu demee du ñu mën a rattrapé parce que dañu am gabu langue ba tax gaaw na jàng le temps nga leen di dugalaat bu ñu amul carte da nga leen di delloo si waat bu ñu ñëwaatee def fi six mois mu nekk benn jaabante boo xam ni xale du ñu am temps ñu yar leen xale du am temps jàng jàng te yaakaar naa ni xale dafa am foo xam ni bu fa tolloo war nañ ko jàngal ko yar te yaakaar naa yenn environnement yuy changé continuement ci ci njaboot du lu positif loo xam ni dafay mën jàppale njaboot loolu nag maa ngi ñaax koo xam ni da fee am njaboot nga bay ci sa waar ndax yaakaar naa ni euh, war nañu euh, góorgóorlu ba bu ëllëgee seede bi ñuy bàyyi du doon seede bu rafet seede bu rafet bi nag du lenn lu dul euh, génération bii di ñëw kuy toll di ñaanal seeni waajur ndax gis nañ ni seen waajur am nañ luñ fi def loo xam ni euh, référence la euh, jamono yi nag crise bi metti na ñu bari dañu nekk ci ay difficulté léeg-léeg sax gis naa fi ñoo xam ne dañu mujjee delloo seen njaboot parce que ay crise bi moo leen mayetul ñu tenir leen fii ñu ci bari ñàkk liggéey la wala euh, ay problème ndax it léeg-léeg nga def projet ñëw projet bi fallire yàlla mooy mooy mooy mooy mooy mooy maye donc da ngay nangu rek xam suñu borom moom lii la dogal nga delluwaat waaye lu ci mun ci am ñi nga xam ni dañoo nekk fii am nañu benn maanaam responsabilité boo xam ni war nañu amaat beneen taxawaay ndax it nag euh, vraiment dëkk bi métti na te it gone yi gis naa ni génération bi ñu ci bari euh, am na ñoo xam ni dañ leen a bàyyi ak seen sago euh, du ñëpp nag ndax am na ay référence vraiment gis naa fi ay ay gone yoo xam ni wax dëgg fa yàlla boo dajeek ñoom wala nga gis leen ci ci ci ndaje diine yi sa xol dafay sedd démb rek maa ngi suivre ndeysaan euh, bésu xasida yi nga euh, ma ma ci lu yéeme ndax euh, léegi daanaka boo xoolee bésu xasida yi maanaam niveau âge daanaka ay gone rek ñooy nekk loolu nekk lu am solo ndax boo xoolee daanaka jeune génération yi rek ñoom ñooy moo yëngu ci ci wàllu kuréel euh, ko def ak defin bu sell vraiment loolu it nekk lu dal xel ñooñu nekk une génération boo xam ne man gëm naa ni bokk nañ ci génération yi nga xam ne am nañ ci ñoom yaakaar ba bu ëllëgee taxawaay bi nga xam ni moom lañu ñu war a taxaw fii ñu war ko mën a matal beneen bi tam ah beneen taxawaay bi nga xam ne moo di sunu dund fii ndax euh, ñun dañu ne ay murit lañu ndax dana wax ci cadre ñun murit nga xam ne xëy na am nañ ci responsabilité ku ci nekk am nañ ci responsabilité ñun mu ne tey jii ñoo fi nekk communauté murit bi nekk ci am taxawaay boo xam ni moom la ñuy taxawaay Cheikhul Khadim fii maanaam muridisme muridisme nag waruñu ko mun dëkkalee rek euh, euh, diaspora sénégalaise wala communauté noire euh, li tax may wax loolu moo di euh, jamono ji euh, dafa commencé am ay ay ay ay ay ay ay ma gis ba ci démb benn mbokk taal bi daf may yónnee benn document bu xaw a doy waar jóge Espagne xam naa sax dinaa ci def émission spéciale benn journaliste bind benn benn pétition maanaam benn benn benn bind benn benn benn communiqué di expliqué communauté mouride waaye boo xoolee ni mu ko expliqué daanaka ni mu ko gisee rek la moom mu di benn communauté la buy dajale xaalis bu liggéey di jaay waaye boo xoolee daanaka ñoom seen métier du lenn lu dul jaay fals bu ñu paree dajale xaalis bi yónnee ko seen xaalis Euh, euh, teg ko ci ay tegtal yoo xam ni moom na mu ko gisee la ko wax euh, donte ñun metti nañu lool gaa yu bëri attaqué nañ ko ba sax defe naa ni Espagne def nañ ci conférence de presse jëm seeni avocat ni dañ koy dañ koy dañ koy attaqué dañ koy porte plainte mu tudd sëñ Mamor wax tourné sëñ Mamor bi maanaam kooku nekk koo xam ni daf ñoo topp lu yàgg nettali li mu gis waaye ci nettali boobu euh, ñun ñi nga xam ne ñoo di communauté sénégalaise dañu war a am taxaw seetlu que ça soit ci communauté bu mu mënti doon fii ci biir Sénégal moo xam tijaani la moo xam muriti la xam laayeen la nañu am seetlu dañu waaw est-ce ñun suñu doxalin bii ñuy def jotul ñu jóg coppite am co ay coppite yu ñu ci def bii ñu dund ñëpp gis nañ euh, te lépp ci yoon lañ ko teg ngi nu dajale xaalis bi ñuy dajale dinaa ci delluwaat dellusiwaat beneen bés bu ci diine nekkee ndax boo xoolee ren ji réforme del terzo settore dugg na euh, in képp ku association léegi dañ lay imposé ngay def rendicontazione maanaam wàllu xaalis bi wàllu say membre tey jii ñun ñun ñun ñi nga xam ne diaspora mouride bi njëkk ñëw ci dëkk bi njëkk fi chinois yi njëkk fi bengalais yi waroon na mën a tey ji ñu daayira yi ñu réformer ko teg ko ci yoon xam nangamu daayira lañ yore créer ay compte bancaire ut ay këyit yoo xam ni tey jii ba nga xam ni dootuñu am benn problème ci wàllu li nga xam ni suñu diggante ak yoon am ay structure yoo xam ni tey jii lu mel ni ay barab waxuma nag kër sëñ Tuubaa yi ndax kër sëñ Tuubaa yi barab la yu am solo te ñëpp gis nañ ni jamono jii ñu ne bu ñu bëggee jël kër sëñ Tuubaa yi boo ko def barab yoo xam ni dañ fay dajee daanaka mën naa ni dëppoowul ak yoon ñu war ni ñu toll tey jii ñu ne ñu daanaka romb nañ des centaines et de milliers de personnes ñu mën a am suñu agence culturelle yoo xam ne tey jii euh, war nañu mën a am centre de conférence tey jii ñu gis euh, yenn xa xaalis jël pour yóbbu Sénégal des fois ak yenn ndaje yi ñuy def di fa dajale xaalis yu ñuy jeex moo xam fay ay structure ñu waroon a mën a def ay projet ndax def projet yoo xam ne tey jii war naa mën a commencé tey waaye du jeex tey dafay doon loo xam ni nañu sampee université ba ca Sénégal noonu la war a xoolee ay projet yoo xam ne dañu nekk fii nga xam ne tey jii dañu war a war a wut ay ay barab yoo xam ni communauté bi dootul soxla dem di àbb fenn lépp luy soxla ndax tey jii

ñu créé ñu créé ay ay ay ay ay ay ay fond yoo xam ni boo leen xoolee tey jii dama koy jël misaal rek dëkk boo dem tey jii am na keesu social boo xam ni ñun suñu dëkk bii ñu nekk rek te suñu kees social dem na ba presque au dépassé nañu cinquante mille euros ak ñu jot ñu dajale fi presque plus de quarante à cinquante millions yóbbu ko Sénégal te mënuñu am lenn loo xam ni tey jii ñu taxaw la loo xam ni dafay tënk communauté sénégalaise bi yëpp moo xam ci wàllu instrument tey ji ndax dëkk bi bañalu ñu kenn lenn parce que nga teg ko ci yoon tey ji waroon nañu mën a dem jëndi terrain bu am solo def ko benn salle boo xam ni dafay dëppoo ni ko dëkk bi bëggee nga xam ni tey ji bu ñu amee suñu ay yitte àdduna mën ko fa def bu ko ñeneen soxlaa ñu ñu ñu jox leen ko ñu ñu leen ko ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu nekk source de rédito yooyu dafa nekk ay ay ay ay xalaat yoo xam ni man dama gëm ni dafa jot léegi ñu toog xalaat ko tey jii xool fu mel ni dañu defee oto junior bi te xool leen oto junior bi ñu tàmbalee ba léegi janvier bi ñaata lañ xaalis waroon waroon nañu mën a toog maturaale benn projet boo xam ne tey jii bu ay ay murit ñëwee toog ñu maturaale ko bind ko ci këyit defar ko loo xam ni dafay sax euh, euh, euh, fondation te war na mën a toog n'importe quelle banque war na ko mën a mën a mën a financer waxuma sax banque di ko financer waaye ñun war nañu mën a ba créé suñu fond la boo xam ni fond boo xam ni euh, ñun li bëgg ñoo ko suñu bopp ndax tey jii li nga xam ni euh, euh, moo di mooy transfert yi ni ñuy def sénégalais bu nekk daanaka gën gaan néew ci at mi danga danga danga yónnee un million gën gaan néew wala wala wala wala wala wala lu ko ëpp boo ko boo ko dajalee ci at mi yëpp tey jii nañ leen xool ñu dajale xam ni tey jii mm, benn fond boo xam ni Sénégalais yëpp nga xam ni tey jii euh, euh, euh, sa xaalis fa jaar ñu canaliser ko jël Sénégal yi nga xam ni am nañu xam-xam ci réew mi ñu jiite ko su li nga xam ni moo di sunu sunu nattu ñu di ñàkk kóolonte xëy na bokk na sax ci li nga xam ne moom moo ñu moom moo ñu xaw a freiné ngir mën a avancé ndax man dama gëm ni nit ki bu fekkente ni tey jii mu ngi ci dëkk def fa lu ëpp fukki at wala lu ëpp ñaar fukki at te amu fa lenn loo xam ne tey jii war na fa mën a taxaw ni lii kat man maa ko moom Euh, euh, euh, màggatam day metti loolu moo waral tey jii xool leen première génération bi ñi fi nekk ñi fi nekk romb juróom fukki at ñi fi nekk ñëpp daanaka ku ci nekkul sa liggéey ba nga yoroon ba mu fi ñëwee ba léegi boo liggéeyul daanaka mën ngaa jël aska wala wala ndimbal li ko waral moo di ñàkk organisation te pourtant weer wu ne weer wu nekk ñun communauté sénégalaise bi ñun diaspora bi danañ takk xaalis boo xam ni kenn xamul nu mu toll def ko euh, euh, ay fonds de consommation mu di ñu dundal suñu njaboot wala sax ñu koy dem denc wala ñu koy def ci suuf ak ciment yaakaar ni ñu ak investir xëy na daa ñu ngi investir te du investissement boo xam ni ñu ngi servir suñu communauté wala bokk mi ngi ñuy doxleel loolu man yaakaar naa ni euh, suñu ndaje yi ñu def mu di ndaje association yi ak ndaje màggal yi war nañ léeg-léeg di toog di xalaat euh, di a euh, rek toog kon yaakaar naa ni màggal yi dañ ko war a co soppi niñ koy defee loolu sax mooy waral nit ñi xëy na boo ñëwee ci màggal yi benn wàllu gi ci biti la nekk ndax boo ñëwee ci màggal gi Euh, ñu ne la màggal gi at mu ne ñu def ko te boo ñëwee kilifa gi tax ñuy màggal moom rek lañ fay waxtaane boo ñëwee da ngay ni la nga fa déggoon rek nga fay déggaat boo ñëwee barkeelu ci kaamil bi jàng fa benn xasee boo moytul ci biti ngay dem nga xam ne euh, luñ koy def wala bokk euh, jafe na nga mën a daje mbooloo mbooloo mu toll noonu moom yaakaar naa ni mbooloo moomu boo leen dajalee war nga leen a mandil ñu ngi loolu nag niñ ko war a defee moo di di ay panel yoo xam ni ci màggal yi euh, ci cant yi euh, boo xam ni ñëpp dañ ci gis seen bopp xale yi soxna yi mag ñi euh, liggéeykat yi ndax waroo mën a ñëw rek tey jii nii dañuy jàng alxuraan suur baax na mais sëñ bi euh, nga jàng benn kaamil pare wax nit ñi lu leen di jariñ moo ëpp foofu nga jàng fa junni kaamil te kaamil yooyu daanaka bu ñu paree boo xoolee gars yi dañuy nekkaat ci problème yi ñu nekk euh, te fekk ne barab boobu am na ñetti nit ñoo xam ni seen xam-xam tey jii ñu leen tegoon ci taabal teg jukki benn poñ boo xam ne yaakaar nañu ne askan bi dana leen jariñ yaakaar naa ni nit ñi bu ñu jógee bu ñu ñibbee danañ danañ sant bu baax suñu dëkk yi ñu ngi dund ay problème yu métti léeg-léeg dañuy gis crise sociale bi nit nit ñi ñu koy traversé xamuñu ko léeg-léeg nga gis nit ñi nekk ci dëkk bi am ay problème psychologique man dama koy xam ndax damay dund dama nekk si dama yore sportello nit ñi dañuy ñëw di wax ak man léeg-léeg nga xam ni ñii seen jëmm moo fi nekk mais seen xel nekkatu fi waaw mbooloo mu daje noonu boo leen dajalee waruñu toog di waxtaan ci sëy yi nga xam ni dafa yëngu euh, waxtaan ci gone yi nga xam ni tey jii nañ leen a xajal déglu déglu gone yi rek daanaka ba xam lu nekk seen xam nag naka la gisee adduna bi naka lañ koy euh, naka la ñuy jànkoonteeg adduna bi tey jii moo xam ci wàllu njàng ndax ñu ngi leen di euh, ñu ngi ñu ngi dund tey jii xeetu bon body contact ci wàllu xeet ndax tey jii su ay doom ay nit ñu ñuul lañ léeg ñu am yàlla defal ñu tawfeex ñu juddoo fii euh, euh, doon ay italien wala wala ñu nekk ci beneen dëkk yor yor yor am possibilité doon euh, yor nationalité dëkk boobu est que jaaduwul bu ñu dajeeg ñoom ñu jàjj leen tey jii jàjj nag moo di tey jii jox leen li nga xam ni moo di seen seen culture maanaam xamal leen ba nga xam ni tey jii ñoom dañuy génn wekk seen bopp xam ñoom ñooy kan ba bu ñu demee ci seeni i morom mun a mun a garder seen identité culturelle euh, euh, ba pare nag xam ni ñoom ay ambassadeur lañu waru ñoo mun a jàdd ndax bu ñu jàddee bu ñu delloo tas yaakaaru communauté day nekk mais yooyu yooyu dama yaakaar ni dañ ko war suuxat ci biir suñu suñu communauté li koy defee nag moo di buñ dajee ci mbooloo mi xale yi di leen xajal di waxtaan ak ñoom di di di di di di laal seeni jafe-jafe tey jii war nañ mën a toog xool poñ bi nga xam ne moo gën a sonal xale yi moo xam jigéen ñi diggante sëy xale yi ndax ndax xamal leen ubbi leen bunt loo xam ni tey jii ay laaj yoo xam ni sax gone yi dañuy am jafe-jafe laaj ko ndax suñu commune suñu société dafa bari tabu Euh, tabu yi mooy lu ci bëri daanaka duñ ko duñ ko ñeme tudd yooyu nag euh, euh, yaakaar naa ni ay réforme la yu ñu war a def ci suñu daayira yi ak suñu suñu association yi ba ba ba mbooloo mi di ci gis seen bopp ndax boo demee tey jii ba xool ni pour nga gis yenn daje maa ngi seetlu gis naa dëkk yu bëri ñu ngi def fête de la de la femme huit mars diggante démb démb association yu bari lan la ngay defal tey teg musique teg jigéen ñi def seen sabar eh, baax na du ma ko sikk ndax xëy na ñu bëri foofu lañ toll waaye est-ce tey jii eh, eh, bés bu meloon noonu mu demee ba association di ko organiser ñu toog am ak njàngat ci suñu communauté ñun ban place la jigéen yor fii ci dëkk jigéen ñi fii tey jii ñu ngi leen di euh, xayma dem nañ ba nga xam ni ñun naa ni daanaka ñoom ak góor ñi ñoo toll ni bu leen ëppul dem ba nga xam ni tey jii ay kër yu bari jigéen ñi ñoo ko yor <coughs> est jii plus mel noonu bu amee ñu toog am am jàngat euh, xoolaat suñu communauté xoolaat jafe-jafe yi jigéen ñi di Euh, euh, est-ce que tax est-ce que euh, jaaduwul ñu ñu jóg am taxaw am jàppale bu ñu leen jàppale bu ñu toogul di di def ay njàngat duñ ko duñ ko duñ ko mën a duñ ko mën a xam mais nag boo xoolee daanaka ñun suñu communauté dafa mel ni rek daf ñuy dund au jour le jour yi fi xew yu ci bari daanaka duñ ci duñ ci am ak njàngat jaadu na daal jamono ji vraiment di tok xoolaat communauté bi xolat li nga xamni euh, euh euh doxul ndax it vraiment communauté bu def 30 ans ci deuk wax deug fa yalla war nga mëna jox nak def li ñuy wax som xol euh euh war tirer sax ay conclusion ndax bari na gone yu fi juddoo léegi ñu juddoo yalla def ñu dund ba am ci borom kër ba commencé ci euh, yàlla daf ñu am ci njaboot kon mu ku demoon ci dëkk doon fa nawetaan yi ba nga am fa njaboot sa njaboot indil la ay sët kon jaadu na tey jii ñu xoolaat am ak njàngat ci communauté sénégalaise bi euh, ñu ko ñu ko war a dundee ma dellu siwaat rek ci ci ci ci ci ci ci ci situation boobu nga xam ni maa ngi ko doon wax boobu nga xam ni moo xew Espagne ci journaliste boobu ndax journaliste bi ni ma leen ko waxee rek moo di dafa expliquer le mouridisme d'une manière très superficielle mais superficialité boobu bu wax moom daf ko gis ci suñu suñu ay daje léegi da ngay gis ndaje bi bu ñu taxawee ci kanamu euh, euh, euh, bu ñu taxawee ndaje bi suñu ndaje yi yaataluñ ko tubaab bi dana fa ñëw daanaka bu fa ñëwee du fa yàgg ba moytul ko indiwul sa soxna wala indiwul sa borom kër boo fu ñëwee doo fa yàgg duñu wax beneen làkk suñu làkk bopp la ñuy wax suñu ñëwee daanaka tey jii eh, njàngalem suñ tuubaa dëgg dëgg pour nga fekk ko fa léeg-léeg dafay xaw a jafe te pourtant dëkk bii ñu nekk tey jii ñun man yaat gëm naa eh, responsabilité bi nga xam ni moom la yor tey jii moo xam murit nga moo xam tijaan nga moo xam bu mër eh, indi ci sa culture indi ko fii waroon nañ góorgóorlu di njëkk ci liñ waroon def moo di fexe ba kàllaama dëkk bi ñu fexe ba lépp luy jumtukaayu suñ diine ñu def na ci la ci ci kàllaama bi loolu moo doon war a mën a tax tey ji képp ku ñu fekk ci suñu diine dinañu wekk danañu xam danañu gën a comprendre ndax nit boo ko comprendre pour nga juger ko dafay dafay jafe waaye boo xoolee daanaka ba fii ñuy wax nii pour nga gis instrument yooyu lu jafe la ñu ci liggéey euh, euh, euh, daanaka mën naa ni nañ ci lool sax donte am na ay avancement yu bari ndax ndax léegi boo boo leen xoolee daanaka dëkk yu bari dem ba nga xam ni système téere yi téere yu bari ci lañ koy defaree waaw mais mais boo xoolee daanaka en langue originale rek lañ koy def te man gëm naa ni tey ji liggéey bi ñu waroon na def dëgg-dëgg di fexe ba tey ji ñi nga xam ne ay intellectuel lañ ci yoon bi ndax bari nañ fi dëkk boo dem tey ji dañ fa fekk ay intellectuel murit yoo xam ni wala ay intellectuel musulman yoo xam ni sax laay wax de femme internationale suñu suñu taxaw suñu waxee war nañ leen comprendre ñooñu ak ak ak ak ak ak mag ñi nga xam ne ñoo ñoo fi nekk ñi nga xam ne ñoo féete ci wàllu diine ñu war a toog am njàngat ba lii nga xam ni tey jii moo di instrument yi nga xam ni moo nekk fii ñu war ko mën a teg ci yoon waaye boo leen xoolee côté boobu xëy na naar yi ñooñu ci gën a am percé ndax vraiment ñoom ñu taxaw xëy na euh, euh, euh, engagement bi ñu am ci taxaw fii moom moo ci moo ëpp ñun ci engagement bi ñu am ndax ñun boo leen xoolee communauté sénégalaise bi fi nekk daanaka que ça soit tarixa bu mu doon li ñuy xalaat rek daanaka moo di investir au niveau de du Sénégal mu gëm ni loolu baax na lool waaye nag war nañu xalaat ñun ñi nga xam ñi euh, ñoom ñoo nekk fii euh, ban instrument la ñoom war a bàyyi pour bu ëllëgee euh, taxawaay bi ci war ñu ñu ñu mën ko ñu mën ko taxaw bu ñu leen fi bàyyi ñoom kenn xam naa ni tey ji loolu vraiment lañ fi bëggoon a indi donte émission bi jeexagul waaye damay wax rek ni ko Baye Fall xam naa ni bu amé benn mbokk talibé bo xamni ci gëna participer ci ci ci ci waxtan bi vraiment ñu ubi ñu ubbi ligne bi ndax it tey jii moom suñ Pape Makhtar dafa dafa dafa dafa am euh ma rek ma fi nek way mom euh waxtan ñu mom danaka benn la ñu di ban taxaway lañu wara am euh am suñu ëllëg ci gën a gën a gën a gën gën a loolu daal moo di taxawaay bi xam naa rek eh, bàyyi xaj eh, maa ngi lancé waat appel mbokk taalibe yi ak rek képp koo xam ni bëgg ngaa dugg vraiment ubbi nañu ligg bi eh, ñu ngi rafetlu seen seen xalaat vraiment émission bi ñu nag yéen a ko bokk léeg-léeg euh, ñu nekk ci euh, euh, tomb yoo xam ne lu ci ëpp gaa yi dañuy bëgg a waaye it dañuy bëgg a dugal yenn argument yoo xam ne dañuy dañuy dañuy soxla yi nit ñuy def seen xalaat donc xam naa ni rek bu amee mbokk mu bëgg a dugg Baye Fall mën ngaa ubbi ligne bi ñu leen di fàttali ne rek ni képp ku bëgg woote Euh, mën nga dugg ci euh, ci Skype bi boo wootee ci ci ci ci ci Skype bi rajo Xassida online euh, dinañ rappelé ñu ñaan rek ku dugg boo mënee fay sa rajo ndax boo fayul rajo bi dafay am écho ñu ngi ziar ñëpp ñu ziar nag auditeurs xam ni ñu ngi di gis ci plateforme Skype bi bari mbokk yoo xam ni daanaka foofu la suivre saa su ne daanaka du ñu du ñu tabe euh, ñu ci ëpp euh, euh, ay laaj di di contribuer ñu leen di ziare ñëpp xam naa rek semaine bii ñëw moom incha allah bëgg naa ñu waxtaanaat ci li nga xam ne moo di réalité du système de l'enseignement waaye dama bëgg bàyyi ba ba Pape Makhtar ñëw xam ni incha allah ñaar dinañ ko gën a mën a aborder ndax euh, gis nañ léegi euh, décret rétroactive yi génn nañ euh, waaye am na yu des ba tey ñu dugal ci ay ndënd sërëf yoo xam ni moom lu doy waar la ci ñi nga xam ni am ñu ci naan te danañ ci waxtaan ak bi mu ne nationalité am na ay modification yu ci génn loolu it ci wàllu langue bi ñi nga xam ni yoruñu yore ñu yore ñu yore ñu carte euh, booru lu ci dañ lay laaj benn diplôme boo xam ni wala cours de formation léegi daanaka loo xam ni c'est discriminatoire euh, yooyu dinañ ci waxtaani incha allah ci ci ci dimanche bi di ñëw bu neexee yàlla ndaa fekk parap ñëw ñu gën ko mën a aborder plus d'information waaye réto di se bi ak ak pensionné di citadinanse bi moom tàmbali Euh, amul nag euh, rissa ndax niñ ko xalaate woon vraiment nit ñaa ngi dem man bari ñëw nañu déposé ko euh, ci sama kaaf ndax actuellement ci dépôt lañu toll pratiquement commencé guñu étudier étudier dossier yi ndax boo xoolee même ñi nga xam ni figure yi nga xam ni ñoom ñoo war a accompagner ñi jël réseau appel euh, réseau digital finance bi mu di navigator yi euh, commencé bu ngeen euh, ndax bande bi ñu gaara bi waroon lancé lancé guñ ko kon ñu mel ni daanaka yii fii moom jarul ko def sorxo sorxo donte nag jar na ko déposer rek taxaw xaar ba ñu ba ñu ba ñu ba ñu ba ñu commencé ko euh, par exemple attribuer ñu mën a xam exactement fuñ ci toll. waaye daal moom tey na xel lool ndax vraiment liñ ci dugal moom. Euh, dañ ko def daanaka pour bloquer li nga xam ni moo di euh, immigré yi nga xam ni amuñu si cardinal sa waaye nag comme li ko wax rek ñu ci ëpp léeg-léeg mbir nit ci daf koy def. du xam euh, euh, yaakaar ni daf ciy jublu ngir bloqué euh, waaye dafay dem ba nga xam ni lu ci ëpp dafay dem ba da koy ëpp doole ndax bu demee ba gis li ngay wax ni li ñuy wax ni par exemple loi bi ni ni ko ñoom ni ñu koy càmbare noonu lañ dem ba nga xam ni tey jii ñu suñu ay experts yoo xam ni ñu koy xool di étudier euh, en profondeur xam ni tey ji euh, su amee li nga xam ni moo di euh, ay échappatoire yoo xam ni tey ji wala loo xam ni dëppoowul ak yoon ñun dañ leen ko mën a attaqué ngir gars yi a jàll loolu it amoon na ci bi def bonus bébé ak bu lis maamu waaw mu mel ni am na mbokk mu nekk ci biir salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah salaamaaleykum waaleykum salaam asalaamaaleykum waaleykum salaam sëñ Pape Demba waaw ñu ngi ziare mbokk mi kooku ndongali naar mbay Touba Milano jëwriñ ñoo leen di ziar ñoo leen di ziar bu baax jëwriñ dafa mel ni dafa mel ni booy wax dafay coupé kooku kooku kan la alo waaw léegi léegi mel na ni leer na bisimilah mbokk mi. tur bi na ma. ñoo ngi lay ziar bu baax Naar Mbaye Touba Milano. ah sëñ sëñ Naar ñu ngi ziar bu baax. ñu ngi ziar bu baax sëñ Pape Demba. naka mbokki Milan. ñu ngi fi ñëpp am ci jàmm alhamdulilah tabarkàlla. mbaa yéen a ngi ci jàmm. ñoo ngi leen ci jëm ci jàmm ñoo ngi ci jàmm di rafetlu liggéey bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf. ma ni nekkoo yow kenn nag nekkoo yow kenn ndax àdduna bépp a ngi lay déglu. waaw loolu leer na <laughs> daa wét ci daa waxukaay bi rek waaye nag. da ngaa wét ci waxukaay bi tey waaye àdduna bépp ak ngay déglu dëgg yàlla. dëgg la dëgg la. ñun nag daanaka biñ biñ duggee léegi rek ci ay cinq minutes lay toll. Mm-hmm, mm-hmm. waaw ci ay cinq minutes lay toll waaye ñoo ngi rafetlu liggéey bu baax a baax a baax. dimanche dimanche bu jot daal ñu leen di topp moom buñ duggee buñ duggul. Mm-hmm, waaw ñu ngi leen di topp daal wax dëgg yàlla di rafetlu liggéey bi gis nañ ñor maanaam combat bi nga xamante ni nii. ah a ngeen ko pour euh, immigration jëm kanam. Mm-hmm. moom saa su ne ñu leen di suivre xam naa ne bu aman ñeneen ñu mel ni yéen moom wax dëgg yàlla dinañ gën a sant bu baax a baax. Mm-hmm. Mm-hmm. ak euh, comme noonu nga ko waxee nag ndax wax dëgg yàlla euh, man moom dafa doon lu may tiital dafa doon lu may tiital in fin fi immigration toll. ci comme loolu nga wax ci trente ans yi ñun sénégalais ban avancé nañ ci am. ban mm-hmm. avancé lañ ci am lu dul maanaam tabax ay kër euh, jënd oto dem Sénégal ñëw xaj na baax na mm-hmm. xaj na baax na waaye euh, ban avenir lañ am tey sincèrement boo xoolee ñu nga xam ne ñoo fi njëkkoon mm-hmm. nga xam ne ñoo fi njëkkoon boo demee Sénégal tey fekk leen fa mënatuñu seen bopp nañ ko mën a woon ñun ñi nga xam ne dañ fi dikkeeg léegi léegi quasi ñu jege vingt ans aussi euh, daanaka mooy loolu. ku ci nekk yaa ngi jàkkee bâtiment bu pareegul booy kocc koccal. ak yu demee noonu. ak yu demee noonu eh, te lu ñu am ñoo ngi xalaat teg benn tànk fii teg benn tànk senegal mm-hmm. te dem ba da nga te wax dëgg yàlla bu mag yi ñëw ak ni ni jamono bi soppeekoo ni immigration bi soppeekoo. Mm-hmm. ñu war cee def xalaat yoo xamante ni wax dëgg yàlla eh, war nañoo génn ci kër yi wuyu si leen yéen ndax wax dëgg yàlla bu dee woote yéen a ngi woote. Mm-hmm. yéen a ci dem ci daayira yi wax fu ngeen war a waxee yéen a fay wax xaj na nit sénégalais ci boppam moo moo na naqaree xëcc waaye sincèrement am na lu ñu war a organiser woo fi ñu toll nii fi ñu toll nii maanaam yëglu ba ñëpp dégguñu di gouvernement bi ñu di réew mi ñu nekk dégguñu suñu gouvernement suñu gouvernement yi nekk Sénégal aussi dégguñu xam ni li ñuy lan la xamuñu suñ futur lan la mm-hmm. xamuñu suñ futur lan la wax dëgg yàlla ndax nag boo demee Sénégal boo fa toogee boo fa toogee un mois balaa deux mois yee jeex sincèrement nga yàkkamtee ñibbisi nga yàkkamtee ñibbisi benn jikko yi tàmbatoo ko. ngir mhm. réew ma yàqoo tàmma tàmmatoo faa toog bay dégg leneen ndax wax dëgg yàlla fii boo dikkee maa ngi koy wax menn mbokkum taalibe nee naa ko euh, man de saaga ba ma jógee Sénégal laa ko gën a dégg ba ni ma fa delloo ni laa ko déggaat aw saaga waaw. Mhm. leneen li ma seetlu di gis Sénégalais buy tux ñu naa man leen Sénégal laa ko gisee. <coughs> waa Sénégal gis ko. Mm-hmm. ndax man loolu yaakaar naa ne amatul xaj na boog sama fa fa sama nekk. nan mm-hmm. xaj na duma ma gis loola. Mm-hmm. xaj na du gis loola waaye comme njaboot yaa ngi fiy ñu jéem leen mettre dans des bonnes conditions ñun aussi ñu jéem a xalaat suñu retour nan lañ koy organiser loolu nag laaj bi dama la koy delloo ba xam xaw ma. xam nga wax jooju wax jooju moo xaw moo xaw moo xaw dëng nag retour. te yow foo dem ba bàyyi fa sa njaboot retour amatu fa. waaw daa xam na looy looy wax. waaw def ba enraciné wu foofu. enracinement ah, ah, ah. bi nag boo koy def maanaam da ngay indi sa culture yow. ñëwul hmm? ba mu mun faa toog. ba sa culture mën faa toog waaw. ndax ndax it tey jii bu fekkente ni. Hmm. Euh, euh, euh, njàngaleem hmm. sëñ bi. moom laa wax tey jii ma ni njàngaleem sëñ bi. tey jii benn téere boo xam ni. war nañ ko war mënees nañu ne fii lañ ko toogee defar ko ba nga xam ni ba mu mucc ay ba nga xam ni tey jii mhm. war na mën a nekk référence mhm. nit ñi tegu ci yoon woo xam ni tey jii ndax tey jii da koy xool dëkk boo mhm. dem ñi ngi fas dëkk da dëkk boo dem am na am na junni daayira te pourtant daayira yooyu bu ñu bu ñu toogoon fédéré yéen yéen gis ngeen ko commencé ngeen ci dox ba yéen a ngi yéen a ngi ci yoon bu am solo Euh, tey jii nga gis damay joxe exemple par exemple. Euh, mhm. da ngay xool tey jii euh, waroon nañ fi am benn commission culturelle boo xam ne. Mhm. bu weer wi di xëy. Mhm. commission culturelle bi da koy saytu. bu ñuy séntu weer. ñu séntu ko ci Italie yëpp. ba nga xam ni tey jii. ñun ñun mais mais nit ñun nañ yu am xam-xam yu ñu yeewu yoo xam dañ leen jàngal. diine wax leen nu diine di doxeeg lépp. dëgg la tey jii war nañu mun a toog. ñu ne tey jii weer bi suba lay xëy. ñu ne nañ ko seet ci Italie ji. mais ñu ko. buñ gisee ni ah we weeru weeru rajab de tey jii tey jii la tey jii la tàmbali. tey jii la tàmbali dëgg la. waa maanaam maanaam maanaam tey jii suñu ko suñu daara yi. Mhm. ñu defar benn téere boo xam ni gone gu fi juddoo ci ngay fere iji. nga xam ni dañ day nekk benn benn benn benn fer iji boo xam ni universel lay nekk ci kër kër kër daara yi tubaa yëpp ak muy nekk suñ tubaa yëpp xam ni at mu jot danañ ñu tey ji daara yëpp ñu ngi daje dëkk sàngam kone yee ko wàcc danañu jongante ñu waxtaan ci wàllu diine tey ji nga xam ni tey ji da ngay créer benn fond xam nga maa ngi wax wàllu fond fond boo xam ni xale yi jàng tey ji bu ñu demee ba ba ba ba war a dugg lu mel ni université. Mhm. nga war leen a mën a jàppale. parce que tey ñun suñu social lan lañ ci def yóbbu ko faatu rek. Mhm. yooyu dafa nekk ay mbir yi nga xam ni moo yor communauté te tamit tey mooy tax communauté mën a dund dund di mag. Mhm. tey jii war nga mën a gis ku am xaalis tey jii. ni ko tubaab bi di defee ndax tubaab yi war nañu mën a jàng lu positif ci ñoom.

Mm-hmm. maanaam maanaam maanaam valeur am. Mm-hmm. mën naa ne euh, euh, mat na ñun suñu Sénégal suñu suñu suñu suñu suñu suñu suñu suñu suñu budget ay ay mm-hmm. ay ay ay yooni yooni yoon dëgg kooku euh, ci garage la tàmbalee waaye bi mu amee xaalis xam nga moom lu muy def tey ji xaalisam ak mu jot dina jël nangami milliards milliards mhm. investir ko ci fondation yi université yi université yu Amérique yi mhm. di ko investir foofu mhm. nga xam ni tey jii investissement bi xam nga ci lan lay nekk ci wàllu xam-xam ci xam-xam mooy li ma doon waxaat sànq rek ci suñu université bi nga xam ni moo nekk moo nekk Touba nañ ci bàyyi xel bu baax ndax xëy suñu jëwriñ ah, la tax mu mu mu mu mu mu defar ko moom xam na ko moom xam na ko dëgg la barab boobu dafa war a nekk barabu sàkkukaayu xam-xamu ëllëg pour pour pour hmm. nouvelle génération wu euh, murit yi dëgg la ndax man dama gëm ni hmm. sunu réew hmm. ak ñun dëgg-dëgg pour ñu mën a développe il faut ñu soppeeku waaw soppeeku nag moo di ci sunu njàngum tubaab euh, boole koog sunu njàngum diine suñu nekkin waaw waaw. Mhm. ndax maa ngi koy wax ni ko xoolal Sénégal ren ji mhm. euh, boo leen xoolee. waxuma mhm. ko dans le cadre politique. mais dafa am seetlu bu ma seetlu. waaw ki ñëw ki ñëw indi ay valeurs yi nga xam ni moom lañ gëm ni ñun moom la moom. dafa am fuñ ko moomele. mu mel ni tey jii benn taalibe murit bu ñëwoon sol laafam. taxaw ni dafa bëgg ñu jox ko réew mi bu yor ko. Mm-hmm. boobu moytu dana am problème. dina am problème dëgg la. dinañ ko dinañ ko dinañ ko jiiñ wàllu waasoo. Mm-hmm. wala ñu jiiñ ko wàllu fanatisme. te li moom lay laaj. te te pourtant nag. Mm-hmm. ñun ñun ñun ñun africain lañu. doon ay sénégalais. doon julit wala doon catholique. nit ki ci li mu yaakaar war na mun a toog. man tey <coughs> man sama référence. Cheikh mm-hmm. Ahmadou Bamba la. dëgg la lu may def moom laay jël teg ko ci kanam. Mm-hmm. kon tey jii waruma am gàcce. Mm-hmm. Euh, euh, taxaw ni tey ji man tey bu buñ ma joxoon réew mi. wala ñu jox ma place. Euh, maanaam recommandation yam ma jox. ci yooyu laay laay laay tegu pour jiite réew. seen jiite réew dëgg la. waaye boo xoolee tey ji ñun suñu réew. ci tëggin toggin biñ ko togg dañ ko togg ci culture boo xam ne ñun du suñu culture foofu foofu ma jox la ci rek ñaar jëwrin euh, bi si njëkk xam naa ne Baye Fall saamam ñuy dégg mm-hmm. sunu mbokk ma yàlla na yàlla yokk ay mm-hmm. sëñ ngeen xasida ndeysaan yàlla na ko yàlla xale àjjana amin ci barke xasida yi mm-hmm. amin euh, commune bi mu dëkk ñoo woote ni dañ ko bëgg a defal mémorandum mm-hmm. ngir fàttaliku ko mm-hmm. Mm-hmm. dañoo wër des pétition ni comme bokkoon na ci dayra nañ dem seeti comité sénégalais yi ñu wax ñu nan lañ ko bëggee waa dëkk bi ñoo ko bëgg a defaat te kooku njàng Serigne Touba la leen woon ndax ñoo ne fuñ toll gis nañ ko mu sol ay yére yére yére yére yu Mm-hmm. dugg ci biir ñun ñëpp la amal jàmm di reeg ñëpp waxtu liggéey jotee ma ngay liggéey bu liggéey jotee la mu seex ak ñoom bu ko defee sol na bàyyi laa tam mi ngi ci biir dëkk bi mm-hmm. di dimbali xale yi di dimbali mag ñi ku am jardin booy dagg mu daggal la ko defal la ko gratuite am réew jum am jikko jum jàngale te njàngaleem sëriñ bi dong la bàyyi naa doon jàngale ci àdduna Ibrahima waaw ñun loolu la ñuy dund Sénégal mm-hmm. murid bi nekk Touba moo xam euh, tijaan bi nekk Tiwaawan Mm-hmm. wala laayeen bi wala ñeseen bi mm-hmm. tey jii dëkk bu sell boobu mu nekk mm-hmm. nga nekk ab baay faal la koy doon baay faal la koy doon dëgg la eh, bu sëñ bi soxlaa ci tool bi ñëw taxaw volontaire esprit communautaire dëkk ba ñu nekk bu dëkk bi soxlaa ñu jóg taxaw lan moo tax tey jii ngeen gisoon politiciens yi doon dem ci dëkku diine yi parce que eh, seen xam nañ ni taalibe yi euh, foofu la ñu nekk. dëgg la ñu soxla seen kàddu. Mm-hmm. waaye tey jii yow boo ñëwee tey jii ni ab taalibe nga. Mm-hmm. te tey jii par exemple dëkk bi da ko bëgg teg ci yoon. Mm-hmm. waaye du ñu seexlu la xam nga loolu kon yaa yaa problème. yaa problème dëgg la. loolu nag loolu nag dellu si waat ba nga xam ni. tey jii suñu université université bu mel ni Touba bu amee. Mm-hmm. la amoon pir am fa ciawoon noonu xëy na yaakaar naa ni nu ñu bëgg si sunu réew mën na am mën na am bu fekkente ni sunu ay doom mm-hmm. dañ leen di solal costume mm-hmm. solal leen cravate ñu wax eh bien alors ñu yaakaar ni ku demul jàngi tugal wala Amérique jànguloo jànguloo boo ñëwee di jël référence ci ay Karl Marx ay mhm. des chartes maanaam mhm. euh, nit ñi nga xam ni tey jii euh, euh, ñun suñu culture suñu diine xamuñu ci dara xamuñu ci dara tey jii culture yi ñuy jël référence yi ñuy mhm. jël moo di franc-maçonnerie franc-maçonnerie dëgg la de la réalité Sénégal tey jii boo xoolee suñu gouvernement gouvernement gouvernement français rek la copier dëgg la dëgg la gouvernement français français

Euh, euh, euh, ñu ngi koy tuumaal ni fii la bokk wala fële. Mm-hmm. loolu dara waralu ko lu dul wàcc suñu ànd dem fekki àndu jàmbur. dem fekki àndu jàmbur. looloo tax nag ma dellu si waat ci kàddu boobu nga xam ni moom la Cheikh mu xam Mouhamadou Mountakha wax nii. Mm-hmm. liggéey bii mu mu yëkkati. Mm-hmm. daan mukk ala yàlla. moom laa soof. loolu mooy bataay bi nga xam ni. ëllëg Sénégal mën na ci am ndam. dëgg la ndax bu ñu demee ba nga xam ni tey jii. Mm-hmm. ci fànn yëpp la. Mm-hmm. Euh, sunum réew. Mm-hmm. dootoo fa gis ku jóg ni mi ngi jàngi euh, euh, dëkk bu mel ni ay Égypte. wala dëkk mel ni Makka. wala gànnaar. wala gànnaar. ndax bu njëkk ba. jamono yi ñu am problème mu ay nax jàng grammaire. wala jàng li nga xam ni. Euh, euh, euh, mag ñu njëkk ña mhm. ils étaient obligés ñu génn ñu génn jamono yooyu nga xam ni boo gisee kaamil bala nga kaa gisaat mhm. kenn doo xam dëgg la ñu yàlla defal lañu tawféex léegi ba nga xam ni tey jii Tuubaa boo fa demee mun mhm. nga toog ci keppaar goo xam ni fukki gone bu ñu xëyee seen xalimaak seen daa balaa tàkkusaan mën nañ la bindal kaamil bu set wecc bu kenn du génne benn yàq dëgg la loolu loolu nag dafa war a nekk liggéey boo xam ni warul des Tuuba hmm. bu amee Tiwaawan warul des Tiwaawan kese hmm. eh, eh, ndax boo leen xoolee dëkk yi nga xam ni dëkk bi nga xam ni moom la def référence mu di Dakar hmm. la nekk daanaka eh, dafa doy waar tey jii bu ñu jëlee dëkk bu mel ni Touba. teg mm-hmm. université boo xam ni tey jii. Mm-hmm. Euh, euh, ay ndaw dañ fay génn. jàng fa xam-xam ba seen xam-xam mat. Mm-hmm. yaakaar naa ni ku leen jox réew duñ ko duñ ko salfaañe. nga jël ay gone yoo xam ne dañoo génn soxla yoo xam ne dañoo génn ci daaray euh, Poroxaan Maam Jaara. yóbbu leen université Cheikhul Khadim ñoom duñ tal grève. ñooñu boo leen joxee réew ñoo leen mënti jox yaakaar naa ni danañ la ko tey tey bu sell tey bu sell et eh. mm-hmm. mm-hmm. loolu nag mooy eh, eh, defe naa ni wàll bi ñu war a taxaw mm-hmm. foofu rek laa doon yóbbu waxtaan wi di am yaakaar nag ni xëy na nit ñi danañ koo dinañ diñu ko gisee dëgg la dëgg la dëgg la wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla moom ah, am na solo Eh, ñun nag ci wàll wi nga xamante ni nekk nañ ci mm-hmm. eh, toolub Cheikhul Khadim bi nga xamante ni ci lañ nekk di ko liggéeyal ah, ñun ñoo war a gën a takku eh, fexe ba daayira yëpp di yëngoo ci wenn tur comme ni nga ko waxee sànq ndax aman na fi bu njëkk xaw ma ba xam ba léegi mu ngi fi ndax déggatuma ko ndax nit ñi bu weer masaana feeñ dañ daan woote lu demee ni Brescia sëñ Fallou nga fa. njaay mhm, mhm. ah, sëñ Ibrahima Ndiaye ngi fi. Mhm. maanaam ay xam-xam lañ jiitaloon. ay borom xam-xam lañ jiitaloon lu ñuy laaj laaje ko fa waaye léegi réew mi demee na noo xamante ni ñoom seen bopp sañatuñoo wax ndax ñu leen dëkkal fi ñu dëkkul. sañatuñ leen a ñibbi seen gémmiñ te wax dëgg yàlla bu dee ay référence ñun fi ci Italie am nañ ko. ma sëñ a ngi fi. ñooñu ñëpp nag waroon ñu leen a mën a jiital. lu jëm ci wàllu culte ñu yor ko lépp lu jëm ci wàllu statut yi nga xam ne ci la yëngu yéen ñooy ngeen di ci yëngu di doon yëngu ci syndicalisme ñu mm-hmm. fexe ba di am benn statut spécial boo xam ne daayira yëpp ci la ñuy yëngu mm-hmm. ndax bu ñu la fekkee tey sa daayira ni la yow li nga def lu mu doon mm-hmm. am ci région Lombardia bi am na décret bu génn en deux mille quinze buy tere lépp luy culte lépp luy diine daayira yu bari wax naa leen ko biñu nee Euh, dafa am kilifa goo xamante dafa bëgg a statut yëpp muy benn man man de loolu d'accord naa ci mais nañ ci waxtaan waaye xaj na forme bañ ko defee mm-hmm. ñetti nit ak ñeent juróom dugg nañ togg ko ba mu ñor génne ko teg ci taabal mm-hmm. ñun jotuñu si te moom dëkk laay si tel lañ bokk euh, mm-hmm. yëguñu woon ay waxtaan xam nañ si nekk yaa ngay def la la intéressé uh-huh. mais buñ jéemoon a fexe daal ba boole ba boole daayira yi Italie ñoo ko war te jiite ko ku ci nekk sa cër ñu jox la ko yéen ñi moom defari kayit ñu saytu ko ba nga xamante ni nii kër sëñ Touba ga ca Rom ak ga ca Touba Monza ñoo bokk benn acte mm-hmm. ñëpp fa la ñuy wuyoo loolu nga wax rek ci wàllu social sëñ Pape man démb rek maa ngi koy xalaat askase woowoon nañ ko ñoo dëkk mm-hmm. woowoon nañ ko suñ daayira mm-hmm. dafa ñu fattaanu mel non mais di ko wax léegi nii aussi dafa dikkaat ndax ñun loolu la ñuy wër loolu lañ bëgg ku ñuy dimbali ci yenn li social wala daayira yi téye xaalis bu dul jeex jëmale ko fenn te amul njariñ mm-hmm. fonds social bi nga ni léegi ma xale bi nekk ci daayira bi waajuram di participer ci social bi xale bi war a dem université et amul amul lu mu dem université ba mu mujj toog tam di jàngi métier te fonds social yooyu nekk bi sincèrement man de dina doon projet boo xam ne dinaa ko insérer ci daayira bi ma nekk mm-hmm. dinaa ko proposition bi ngir ñu dugal ko ci biir mm-hmm. ndax ñun li ñu li ñu dal ba nekk ci ay ditaam ba ñàkk suñu ndigg wala ñàkk tànk wala nangam ak nangam warta dal suñu doom. dëgg la. te war nañoo xalaat mu ñu gën a préparer suñu immigration préparer xale yi ñëw ah, ñun bu ñu yokk ji Tuubaa ñu yokk ji Tuubaa bu ñu fi toog gunge leen ñu toog gunge leen. Mhm. xam naa dañuy bañ a téye muy gën a gudd te mbokki taaliba yaa ngi fi. bëgg nañu lool daal wax dëgg yàlla ñu ngi ñaan yàlla yonte rek sëñ Tuubaa gën laa dëgëral ci barke sëñ Muntaxa na mu yàgg fi te ànd dëgg amiin amiin amiin amiin amiin na murit yëpp di déglu waxtaanu sëriñ Muntaxa mhm. di déglu ab joxañam ab joxañam nañ koy déglu ngir xam fam ñu jëme mhm. bërki démb daa woote njàngum alxuraan ngir sant yàlla suñu borom ci ko ñaanal ñëpp tiitan ci mhm. fu waay nekk boo doxalee ndigal la jàmm jam doon woote ak cant gam doon woote yaa ngi ca biir ndax fu mbir di yëngoo sëñ Tuubaa ba doon dëgg la loolu yàlla nañ ci a dooleel dimbali bu baax nañ ñëpp ñaanal sëñ bu yàgg fi te ànd ak wér sëñ Muntaxaa yàlla fi yàgg te wér yàlla fi yàgg te ànd ak wér ndax sëñ Tuubaa kasi léegi mm. jërëjëf jërëjëf jëwriñ jërëjëf ñu ngi ziar bu baax mbokk mi eh, vraiment mm, duggoom am it eh, wax jooju mu wax rek eh, mm, maanaam njàngum alxuraan bi ñu bi maa ngi koy wax dimanche bi passé rek cant la euh, ndaxit euh, tey jii euh, ñu bari ñu ngi bàkku Sénégal ñu wax maanaam jàmm dara amu fi nangam ak nangam ñu bari xamuñu ñu leen ñu leen Sénégal jàmm jooju lu ko fa waral régulateurs sociaux yi ci lañu bokk suñu kilifa yi ndax xool doxin yi suñ muntaxaa doxale euh, vraiment ñu ngi ci sant bu baax te xam ni dox na ci dox bu am solo ndax ku gis keroog ajuma waxtaan bi mu waxtaan ak euh, leaderu opposition yi fa dem ñu mu leen ñaaxee ak recommandation yi mu leen jox euh, loolu dafa dafa dafa dafa dafa dépassé xëy na ku bëgg gis wala maanaam ku bëgg a comprendre te comprendre léegi-léegi nag nit jël baaraamam joxoon jant bi ci yow nga xool baaraamu mbokk mi euh, yaakaar naa ni euh, war nañu dellu si te nag euh, xam ni am nañu loo xam ni réew yu bari ñi ñu koy envier loolu nag yemul rek ci ñu ne diw mooy suñu kilifa déedéet le Sénégalais en en personne moo nekk jëmm ju ju complexe jëmm ju kenn mënta comprendre jëmm jooju nag euh, euh, euh, dañoo war saa su ne di ko suuxataat gën a góorgóorlu ba vraiment sunu sunu nekk gën a gën a yomb xam naa ni tey jii du ñu mën a sori ndax comme ñun rek a fi nekk te it um, li ñu joxoon ci waxtu uh, mel ni mat na def rek ñu du sant xam ne ñu ne ñoom ñoo àndoon émission bi sama sama jëriñ sëñ Ousmane Ndiaye Padova maa ngi ci biir uh, vraiment ñu ngi koy ñu ngi bu baax uh, xam naa ni jëmb ma nga France moom sëñ Malick Diouf sama mbokk sama jëriñ <laughs> daaru minam bala may si càmm sëñ Baro maa ngi ziar ñëpp sëñ Balla Ngom euh, mbokk yi nga xam ni daanaka plateforme yi boo leen xoolee ñoom ñëpp ñu ngi ci parce que pratiquement soxna Mbaye Diop euh, euh, Baye Diouf vraiment soxna Sëli Kane na soxna Mbaye sa taal ak sama sëriñ sama sang Maodo Malick Sy kon mu mel ni gis nga rek waxtaan bi euh, euh, sànq ñu ngi ñu ngi tudd kilifa yi kër yëpp waaye mel na ni daanaka boo xoolee waxtaan bi ñu ne ñoom a koy bokk ndax tey jii kooku ma lay wax euh, kilifa la ci ci rajo moom rajo Malick suñ Pape Ndiéguène waaye daanaka na ni émission bi ñu ne ñoom a koy bokk kon mu mel ni ñëpp ñuy bàyyi xel kon it noonu la ñu amee njàngat suñu communauté ndax communauté sénégalaise buñ ko wax nous parlons de la communauté en général tey ji ku ci nekk am nga responsabilité te am nga rôle boo war a joué rôle boobu nag saa su ne dañ ci war a dox la nga war a dox yow taxaw xool ndax ndax ñeneen ñi ngi def waaye waroo taxaw ni suñu communauté doxul ndax boo nee suñu communauté doxul war nga xool yow lan nga ci def ah, boo xoolee ni yow defoo ci dara bokk nga ci ñi ko doxal kon tey jii ah, mbokk yi war nañu amaat seet taxaw seetlu suñu ba nga xam ni tey jii suñu njaboot jii lan lañ leen di bàyyi bëggu kon ngi gërëm mbokki taalibe yi nga xam ni ñoom la àndaloon ak auditeurs yi tey ci seen émission diaspora euh, ni ma ko waxee rek ci ci ci ci bi di ziar ñëpp ci ci ci weeru weeru rajab bi di di weer yi nga xam ni moom suñ fàllu daf di weeram la ñu fas yéene ci ànd ak moom xam naa ni du ñàkk suñ mën mbay jàmm permission moom danañu ci may ay waxtaan fii ba suñu jëm ci ci màggal bi waaye it ñu fàttali ni ñu ngi ci weeru màggalu soxna maam soxna jaara ñu màggalu poroxaan jëm le vingt-huit ñëpp xam ni jëwriñam moo di sëriñ Muntaxa Euh, euh, euh, ñu ci fàttali ñun fii ci ñu ngi ko fas yéene def le treize mai le treize avril incha allah ànd ceeg daayira Minanul Baaxil Xadim fédération Serigne Bassirou ak fédération Maam Soxna Jaara yi nekk Italie yëpp ak seen jëriñ soxna am sàmm ñu koy defee fële seen nawaar di ci ànd ak Serigne Isaaxa Mbàkke di rakk ci sëñ Muntaxa di ñaan suñu borom may ñu ñu fekkee ko jàmm Eh, eh, eh, di di ko di ko fàttali bépp mbokki taalibe ñu waajal ko niñ ko daan waajalee at mu jot di leen baalu ak nag ci lépp loo xam ne rek ay kàddu yu jubadi la ndax it doomu aadama moom moom moom matul yéeni ji suñu yéeni bi woon lenn lu dul fexe ba passé benn message boo xam ni mbokki taalibe yi wala auditeurs yi dinañ ko comprendre lu ci baax nag ñu xam ne limbalu suñu borom la Euh, waaye euh, yéene bi rek moo doon vraiment joxe suñu contribution ci li nga xam ni moo di communauté bi soxna Aji Diouf ñu ngi lay siyaar bu baax bu impoli euh, maa ngi jéglu ñëpp di leen siyaar di dox def daje dimanche ak jàmm di siyaar nag technicien Modou Mbaye Sam Baye Fall moom ak maam Saliou ak suñu Aliou Mboup deful bëri xam naa ci fan yi rek dinañu enregistré waat seen émission Zadul Musaafir moom mi nga xam ne moom la ñuy def fële ca fële Touba monde bi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërë ngeen jëf يا نور